gi nee na bëri na ci Dakar ñoo xam ne ba léegi jënd gu ñu xar am na ñoo xam ne dañuy xaar ba dernier moment bi yaakaar ne bu boobaa xar dina yomb surnal bi nee na am na sax ñoo xam ne génn nañu Ndakaaru dem ci yeneen gox fu ci mel ni na wala Touba Toul jàpp ne foofee mooy bërëb yi nga xam ne fala xar gën a yombe yéen kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar nan ñu tabaski gi ren ji ñaari tabaski lay doon tey ji am na ñuy tabaski suba tamit am na ñuy tabaski yéen kay gi nee na loole nag yàgg na Sénégal li nga xam ne mooy tànku njëkke loolee bokk na ci li nga xam ne moo sonal jigéen ñi jigéen ñi maanaam rawatina ñi nga xam ne ñooy xale jigéen yi doog dugg ci biir néegu sëy li nga xam ne mooy tànku njëkke maanaam daan ñu koy fonk lool yéene kaay gi de la Quotidien xëy duñu xibaar nan ñu bëri na ay bërëbu jullikaay ci ndakaaru yoo xam ne ren ji duñu julli daan nañuy say deltu ginnaaw la ko waral bokk na ci covid 19 be coronavirus bi nga xam ne maanaam mooy gën a yokk ci réew mi yéene kaay gi de enquête xëy duñu xibaar nan ñu famille Omar yéena ñoom nag nee na ñu dala li nga xam ne mooy julli tabaski gi duñu ko amal ndax coronavirus bi yéene kaay gi di réew mi Quotidien xëy ci lu jëm ci xeex woppi coronavirus ak ni nga xam ne jamono ji moom la bëree ci Sénégal yàggatul dara ci Ndakaaru danañu fi andi li nga xam ne mooy ay test rapide yéene kaay gi nee na Mauritanie nag moom wane na yoon wi waa Mauritanie wane nañu yoon wi ndax ñoom jël nañu seeni matukaay matukaay yoo xam ne yu leer nañu la ndax nag li nga xam ne mooy julli tabaski dañoo wax ne duñu ko amal fenn ci Mauritanie ndax coronavirus bi yéene kaay gi nee na Serigne Mbaye Sy am na dëgg ci askanu Sénégal waaye nag daan nay li nga xam ne mooy ay ñaan wax ñu sàkk sarax yéene kaay gi Populi xëy du ñu xibaar na ñu saa sunu xëyee ñu ñuy xibaar naan ñu violence bi ma ngi gën di takkarnaase ci bërëbu jàngukaay yéenekaay gi nee na ci diwaanu Thiès ci lycée Sange foofe dafa am benn élève boo xam ne Malick Jonn la tudd moom dafa agressé surveillant bi nga xam ne moo daan surveiller seen école ba yéenekaay gi nee na moo taxit moom Malick Jonn moomee daan ñu koy dàq définitivement aw xeer la jël dóor ko ci kaw surveillant bi bopp bi toj yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu jamono ji ci Ndakaaru léegi tey dootoo fi gis di picc ndax ñu bare bari ñoo ngi génn ndakaaru di dem ci gox yi nga xam ne fa la ñu fekk baax ndax gaaru ceer yi boo fa demee maanaam askan wu bare bari nga fay fekk waaye nag li am ba desal ak nemmeeku bi bëri na ñoo xam ne ñu seeni matukaay maanaam respecté wuñ li nga xam ne mooy mesure barrière yi yéen kaay gi nee na paas bi paas bi dafa yokk lu bare bare bari ci gox yi bare bari ndax boo bëggee génn ndakaaru am gox yow dem daal maanaam di nga làmb sa poos génn xaalis bu weex tàll même sax ngir nga dem gaaru ceer rek taxi yi wala yenn xeetu yi maanaam ngir mu yóbbu la say bagage wala sam boobee rek xaalis bu weex tàll di nga ko ca génn yéen kaay gi nee na jamono ji am na ñoo xam ne sonn nañu ba maara de taale yéen kaay gi di vox populi ñu xëy fekk fa congrès de la renaissance démocratique ñoom Abdoul Mbaye ñoom nag daan ñuy bind Omar Sakho mi nga xamante ne moo jiite conseil constitutionnel ngir nag andi ay jubbante ci rëq-rëq yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci kër googee ndax nag conseil constitutionnel ñëpp xam na ne juróom-ñaara ci ay juge la ñu war a te nag jamono ñeent rek la ñu doon opposition bi di sàkk ñu nomi waat ñetti juge ngir nag andi ak jubbanti ci tojaa tàng yi nga xam ne moom la ñu fa nemmeeku Abdoul Mbaye nee na loolee giraawaali la musiba mabbu kumba gu doy a doy waar la ci réew moo xam ne nee na ñu réewum démocratie la nee na ñu réew la moo xam ne réewum yoon la yéen kaay gi di esat xëy duñu xibaar naan ñu Everton ak Manchester United jamono ji ñoo ngi ci xeex bu metti ndax ñaari club yi yëpp dañoo bëgg ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly bale kaay gi di esat xëy du duñu xibaar naan ñu Tëngéej FC jamono ji nag maanaam footballub Sénégal moo ko téye ci loxoom Tëngéej FC footballub Sénégal moo ko téye ci loxoom